gannaaw sant suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam mbokki jaamu yàlla yi ñu ngi dégg suñu bopp di leen dénk ragal yàlla mi nga xam ne mooy marchandise mi ëpp bénéfice di leen dénk itam sax ci jëf yu baax ba ba sunu dund di jeex suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ko te itam bu leen dee dikkal lu mooy tekk na ngeen nekk dëgg-dëgg ay jullit mbokki jullit yi bokk na ci mbir yi nga xam ne aajowul wutal ay lay mooy na jamono lu gaaw a wéy la lu gaaw a soppiku la lu ci jàll itam du dellusiwaat waaye jamono jooju itam ndab la loo xam ne dañ ciy def suñuy jëf dafa mel na bàq bu tooy la boo xam ne dañ ciy ji suñu jiwu koo xam ne ji na ci ay jëf yu baax ji ci ay yiw dundub addunaam day neex lool mel na xetuk ay fleur ndax man regay jaamu yàlla yooyu di feeñ ci moom waaye ca àllaaxira itam dañ koy gàttandu ak i mbégte dañ koy gàttandu ak i xéewal yi ko borom bi tabaraka wa taala préparel waaye bàq boobu itam nag ku ci ji ay bàkkaar addunaam day mel ne ab désert boo xam ne ñax du fa sax garab du fa am su ko defee nag tawub waamew nubbuwa wàcc fa waaye moom texe wu ca mooy jëriñu wu ca ndax jiwu ca bu alaaxira itam du bokk ci ñiy texe du bokk ci ñi nga xam ne seeni daraja day yëkkatiku loolu misaal la bu ñuy joxe ci nit ñoo xam ne dañoo sax ci topp suñu borom tabaraka wa taala am ca fulla jóg di wut ngërëmul borom bi tabaraka wa taala sax ci ak njub loolu nekk seen doxalin seen aada ci jamono bu nekk ak ci waxtu wu ne du ñu firi génn kóllëre goo xam ne amoon nañ ko seen borom du ñu tepp itam menn benn atte boo xam ne amoon na seen diggante ak seen borom ak nit ñoo xam ne day tempoon nañ ci ay fan yu néew jëm ci seen borom waaye fan yooyu doxul tuuti rek seenu dogu daal di wayef seen jéego yu ñu doon def jëm ci topp yàlla daal di dellu gannaaw ñu daal di mujj bokk ci mbooloom ñu saggan ñi mbooloom ñu sànq yi mbokk yu gëm yàlla yi nañu taxaw tuuti fàttaliku weer wii nga xam ne waxtaanam kenn du ko doyle daraam itam du màggat daraam du rab weer wii nga xam ne mooy weeru koor nga xam ne ab jantam sona ci nun ci mii ab biddéew mi itam suux na weer woowu nga xam ne ñu ngi ko doon dundal ay fanam ak i guddeem ci ay jëf yu baax ci koor ci naafila ci jàng alquran ci tabe ci def lépp loo xam ne lu baax la mu ndax weer woowu nekkul woon ci lu jege rek ñu nekkoon di ko teeru di yàkkamtee dajeeg moom bi mu ñëwee itam ñuy mébét bañ a tàggoog moom kon nag borom bi tabaraka wa taala ñi ngi koy ñaan mu nangu li nu ci ji ci jëf yu baax jéggal nu itam lu ñu ci def ci ay rëcc rëcc jéggal nu itam lépp loo xam ne lu ñu ci waroon a def la te mu manqué wala ñu am te njuumte ci ak mbaaxam ak tedd nga am mbokk yi gëm yàlla fan yii doon weeru koor ak fan yii ko topp di ayaamul ayit fan la yu fees dell ak mbégte fan la yu fees dell ak saar boo xam ne ci la jullit bi di wat nji mu teey mi nga xam ne moom la jiwoon ci biir weeru koor muy sant borom bi tabaraka wa taala di bég ci aydul fitri googu nga xam ne ak jaamu yàlla la bu ci tës waaye ci fan yooyu nag ci biir mbégte moomu war nañoo tegaat sunu bopp ci barab bu seetluwaat ngir jubbanti ay doxiin yu bari yoo xam ne ñenn nit ñi am nañ ko ci seen digganteeg seen boroom ci weeru koor ak bu weeru koor jàlle jubbanti ay dégg-dégg yoo xam ne nit ñi déggee nañ ko te fekk na dégg-dégg yu juunu la yu juum la bokk na ci li ñu war a bàyyi xel itam fexe ba saxal li ñu jële ci weeru koor ci ay bind ak i jeexit lu mel ne muñ lu mel ne farlu lu mel ne yërëmante lu mel ne jokkoo lu mel ne di régler sa bopp lu mel ne jihaat ak sa bakkan di ko yan loo xam ne neexu ko waaye jëla ngërëmul yàlla nekk ak di fexee gañe sa bakkan ëpp ko doole yooyu yëpp ay bind la yu ñu jëlee ci weeru koor nañu fexe mu sax ànd ak nun ndax bind yooyu saxee nun ci la ñuy ubbil sax bunti ñu mën a gañe suñuy noonu ndax bala ngaa mën a gañe sa noonu faw nga mën a gañe sa bopp sa bakkan ba man ko yan ci loo xam ne luy maye ngërëmul borom bi tabaraka wa taala la bokk na ci taxaliko gi ñu taxalikoog weer wi itam dafa war a nekk ab tàmbali boo xam ne dañuy delluwaat nag ci di rawante ci lefi jaamu yàlla yi di rawante ci sax ci roy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkaat itam point boo xam ne dañ ci tàmbaliwaat nag di jéem a wuyu li nga xam ne moo am ci suñu bakkan ci lu baax ak kattan yi mu am ci mën a def lu baax ñu jéem koo yëngal jéem koo jariñoo jële ko ci kàggante jële ko ci noonoo akub juuyoo waaye yóbbu ko ci ak yëg akub bennoo akub déggoo ci biir jullit yi ñu yëkkatiwaat itam valeur yu xeer yi nga xam ne nekk na ci bakkanu doomu aadama jéem koo jariñoowaat gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor mbokk yu gëm yàlla yi bokk na ci dégg-dégg yi nga xam ne yu juunu la ak mbir yoo xam ne itam yu juutu la ñu baree bari ci nit ñi dañuy jàpp ne weeru koor day weeru jaamu yàlla la weeru sori lépp loo xam ne lu baaxut la waaye su weeru koor jàllee nag ñu daal di mel ne dañoo tinkiku dañoo yeewikuwaat mel na sax ku bëgg a fay lépp loo xam ne daf koo faatoon ci biir weeru koor wi ci ay bànneex yoo xam ne yu neexul borom bi tabaraka wa taala la loolu nag day tegtali diina ji woyof day tegtali itam ngëm yàlla goo xam ne gu feebal la ndax buñ dee seet ci ban téere wala ci ban sunna la ñuy gis ne nit ki dafa war a nekk jaamukatu yàlla ci biir weeru koor waaye ci weeru korite nag mu nekk nit koo xam ne kuy xotti sutura diina la nit koo xam ne ku def lu ko neex la moo ndax borom weer yi du kenn moo ndax du ki nga xam ne moo doon muraaxaba jaam ñi ci biir weeru koor ñu di ko yëg kenn ku ne di yëg na boo defee lu yàq koor gi même bu ko nit ñi yëgul te borom tabaraka wa taala yëg na ko ba ngay wattandi ko loola moo ndax du borom boobu tabaraka wa taala ba tey moo continuer di muraaxaba di contrôler suñuy jëf ak lépp loo xam ne ñu ngi koy wax te borom bi tabaraka wa taala kat wax ne ñi muy nangu seen i jëf mooy ñi ragal yàlla innama yataqabbalu llahu min almuttaqin kon nag mbokki jaamu yàlla yi ay na xol yi nga xam ne ñoo doon toroxlu ci biir weeru koor ay na làmmiñ yi nga xam ne ñoo doon ñaan ana déeyaale yi ñu doon déeyaale suñu borom tabaraka wa taala ana yaqiin bi nga xam ne moo feesoon suñuy xol doon ko dundal moo ndax suñu xol yi mandiwul ci aaye alquran yi ñu doon dégg ak jàjj yi nga xam ne moo ci nekk ci waaraat borom bi mi ngi wax ne walaw annahum faalu maa yoo azoona bi la kaana xayran lahum nit ñi de bu fekkoonte ne danañu jàpp danañu def li ñu leen di waare kon day moo gën ci ñoom te wa ashadda tasbita te moo leen gën a mën a saxal itam ci lu baax ñi nga xam ne dañuy sàggat gannaaw weeru koor ñooñu day cër bu manqué manqué la ñu am ñooñu de bu ñu tuubul dellu ci borom bi tabaraka wa taala jéem a sax ci li nga xam ne moom la ñu nekkoon ci weeru koor ah weeru koor kon musiba la doon ci ñoom ndax bañ ca jógee dañoo gën a nuuraat ci ay moy te bokk na ci mandargam jëf ju ñu nangu boo ko defee ba pare nga tegaat ci ak jaamu yàlla jëf ju baax waaye jóge ci jëf ju baax daal koy mujjale jëf joo xam ne ju ñu gërëmul la loolu tegtal la ci la jëf jooja nanguwuñu ko borom bi mi ngi wax ne wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwatin ankaasa bu leen mel ne ki nga xam ne dafa yendoo ëcc wala mu yendoo ràbb sonn ca lool ba ngoon mu teppiwaat la mu ràbboon lépp mooy ci weer weeru koor xiif mar saxaw ba weeru koor wi jàll mu delluwaat ci ay bakkaar kooku day mel na li mu ràbboon ci weeru koor gi lépp kooku firiwaat na ko ma ndax ku gëm yàlla koo xam ne dafa yaakaar ak mucc ragal boroomam gëm ne day dajeeg moom ëllëg kooka mënula nekk lu dul koo xam ne ngëm yàlla mooy keral mooy keppaaral ay yëngutoom ak ay waxam ak jëfam li feeg mi ngi dund sax lool ci ak jaamu yàlla jokkaloo continuer ak digganteeg boroomam tabaraka wa taala sax itam ci sellal gu xóot ci topp gi ñu topp borom bi tabaraka wa taala ak di sàkku lépp lu ñuy jegeel borom bi tabaraka wa taala kooku du ràññat la benn jamono ak morom ma day topp rek ndigal borom bi tabaraka wa taala ji mu wax ne wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al yaqin jaamul sa borom sax ci ba dee dikkal la benn diggante bu ñuy am ak noppalu ci jaamu yàlla wala bu ñu koy wayapal wala boo xam ne bu nit ki mën a libre la ci boppam amul ci dundu doomu aadama dundu doomu aadama jaamu yàlla rek a tax ñu andi ko fi wa ma xalaqatul jinna wal insa illa li yaabudun comme dundab boobu lépp ci jaamu yàlla la war a jeex da nga gis ne ñi nga xam ne ñoom lañ gën a xañ aw yiw ñu sori lool ngërëmul borom bi tabaraka wa taala mooy ñi nga xam ne yëkkati wu ñu woon seen bopp sax bu weeru koor ñëwee yëg na lii weeru jaamu yàlla la am na ci ñoo xam ne ci biir weeru koor gi ci càggante seenu càggante sax dafa gën a yokk seenu dund yépp ñu nar koo jeexal ci mooy suñu borom tabaraka wa taala mbooloom julit mi ñu gis ñépp jëm ci borom bi tabaraka wa taala mbooloo moom sax yóbbaalewu leen ndax léeg-léeg nit daana tàggal waaye bu ko ñu farlu ñu bari rombee mu daldi bàyyi la mu nekkoon ànd ak ñoom waaye am na ñoo xam ne loolu sax yóbbaalewu leen ñooñu dafa mel na seen xol yi dafa woowee ne ay doj wala sax mu gën a wow doj xamatul lu baax xamatul it lu bon lu dul rek li nga xam ne moo fees seeni xol ci bànneex loolu rek la ñu xam ramadan ñëw na ba jàll ñu continuer seenu càgganti ayit gi ñëw ñu gën a dolli seenu càgganti yom la borom bi naan wa in yaraw sabila rusdi laa yattaxiduhu sabila suñu gisee yoonu njub duñ jàpp ne lii yoonu njub la wa in yaraw sabila al xay yattaxiduhu sabila bu ñu gisee nag yoonu ndëngteeg yoonu mbewte loole nag la ñuy jàpp ne mooy aw yoon ibnul jawzi rahimahullah mi ngi wax ne nee na mooykat bi amaana mu gis ni yaramam di mucc dara dalu ko gis ni alalam di dolli ko dalal alalam dara wàññikuwu ci mu jàpp ne kon moom li mu nekk lu wér la li mu nekk amul mbugal ndax su fekkonte ne ci lu jaaduwul la nekk kon du am wér gi yaram wala alalam du jub mu ne xanaa xamul ne sàggan gi mu sàggan ba ñàkk a yëg ne li mu nekk ak mooy la nee na loola sax moo gën a tar mbugal mbugal ma foofa la gën a taree kon nag woote bu dëggu la ñuy jëmale ci ñooñu nga xam ne dañoo sàggan pour ñu tuub delsi ci suñu borom tabaraka wa taala guddiku ci li nga xam ne ci la ñu nekk rëccu ci li nga xam ne ci la ñu sàggan ndax buntu tuub kat tëjuñu ko te itam jëf la joo xam ne borom bi tabaraka wa taala du ko delloo ci ku ko sellal nee na wa inni la gafaru liman taaba wa amana wa amila salihan tumma htada nee na man yàlla day ab jéggal ak kon laa ci ko tuub gëm jëf-jëf ju baax ba noppi nag tegu ci yoon wu jub bi saa bu dellusee rek borom bi tabaraka wa taala nangu ko waaye ci wet googu itam da nga gis beneen kuréel boo xam ne ñooy xawaafilu ahli tuqaa mooy karawaanu ñi ragal yàlla te gëm yàlla ñooñu nga xam ne alquran ak sunna moo suuxat seeni xol jox leen ak dogu dolli seen yaakaar ñu xam ne ajjana kat ay daraja yu kawee fa nekk daraja yooyee nag ñu xam ne borom bi tabaraka wa taala wutal na ko ay teret teret yoo xam ne jëf yu baax la yoo xam ne nit ki da cay gën a yokkoo ay daraja ci ajjana teret yooyu nag ñu war koo profito ci dolli yitte dolli cawarte dolli yaakaar ci borom bi tabaraka wa taala ñooñu la borom bi melal naan tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'uuna rabbahum xawfan wa tabaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'maluun nee na ñooñu day bu guddee ba nit ñëpp tëdd ñoom seenu gu wet dañ koy soreel lal ba ña ngay jaamu yàlla ña ngay julli ña ngay ñaan borom bi tabaraka wa taala boole ragal mbugalam ak yaakaar yërmandeem mu ne ñooñu day dañuy dépensé itam ci li nga xam ne moom laa leen wërsëgal nee na tey la ma leen dencal ëllëg day ci luy xelal xol mënuñu koo xam fii ci àdduna dañuy ñëw rek ba gis ko ibadallah loolu kon mooy ak dégg diina dëgg dëgg dëgg dëgg mooy jaamu yàlla gi su wéyee nga gën caa jëleg tawarte gën caa jëleg soññ sa bopp su ko defee càggante yi nekkoon ci yow yépp muy mel ne ku rentré woon hôpital ba génn kooku bu génnee cawarte ak wér la war a génne day mel ne weeru koor weer la woo xam ne ko dañ ca rentré woon jullit ñi pour faj amraadul xuluuf muy feebari xol yi nekkoon ci ñoom càggante yi nekkoon ci ñoom kon nag bu ñu génnee ak cawarte la ñu war a gis waaye bu ñu génnee kat génne hôpital ba noppi ñu gis ne na nga feebare woon sa feebar tey la gën a yokku kon pikir yañ la doon defal wala garab ya nga doon naan li muy tekki mooy jëriñu la woon dara wala sax naanoo ko woon na nga ko war a naan kon nag nañu sax ci li nga xam ne mooy njubug borom bi tabaraka wa taala man di ci li nga xam ne moom la ñu jëre ci weeru koor doon ko naane ci alquranul karim doon ko leeroo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam lii nga xam ne moo ci toppoon di idul fitril mubarak waaye loolu lépp nag day laajaat ummatal islam muy xeetu jullit ñu woowaat leen ñu delluwaat ci muhaasaba seen bopp muy réglewaat seen bopp régle woo gaa xam ne gu fullewu la rawatina jamono yii nga xam ne barab yu baree baree baree bari ña nga fay fitnaal ay jullit di leen fa doyadal di leen fa teg lépp loo xam ne coono la loolu kon day yey ci jullit ñi ñu dellusiwaat war a jëfandikuwaat ci téere borom bi tabaraka wa taala ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam bi nga xam ne mooy seen ndëgër laay yi nga xam ne buñ ci jàppee lu dëgër lay doon te itam borom bi mooy dox seen digganteeg bépp noonu kon nag yéen mbokki jaamu yàlla yi nañu toftal suñu weer wii ak ayib ji ci sant borom bi tabaraka wa taala ak di ko tag nañu xam ne que ci xéewal bu rëy la ñu nekk xéewal goo xam ne suñuy cër lot na sax ci sant ko nañu xam ne borom bi tabaraka wa taala jamono bu nekk mi ngi tàkku lu nuy may cofeelam ci ay jëf yu baax yoo xam ne daf nu koy ndigal suñu ko defee loola moo nuy may ndigalul borom bi tabaraka wa taala moo nuy may itam jege borom bi tabaraka wa taala jëf yu baax yooyu nga xam ne mooy yëkkate suñuy daraja mooy dolli suñuy yiw mooy far suñuy bakkaar mooy yar suñuy ruu loolee nag bokk na ca li nga xam ne moom la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soppaloo ci ne ñu woor juróom benn fan ci gannaaw bu weeru koor wi jàllee juróom benn fan yooyu nag sartuñ ci mu sës rëkk rëkk ci koor gi sartuñ ci itam mu nekk yoo xam ne da nga koy sësale kon ba léegi faatagul li fekk yaa ngi ci sawaal ci weeru korite yi woor ci juróom benn fan faatagul ndax li nga xam ne muslim génn na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku woor weeru koor toftal te juróom benn fan ci weeru korite day mel ne koo xam ne woor nga at mi yépp ndax alxasanatu bi atri amsaliha benn bu nekk yàlla fukk la ciy fay kon weesu weer yi soo ko wooree yàlla fay na la fukki weer at mi kon def na ñaari weer ñaari weer yooyu soo yoree juróom benn fan benn fan bu nekk di fukki fan mooy tolloog ñaari weer yi mankoon ci at mi kon soo yoree weeru koor teg ca juróom benn fan borom bi tabaraka wa taala dana la bindal tuyaabay ku woor fukki weer ak ñaar kon loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax te xam ne ba léegi fàttagul kon gëneel lu mag la yoon la bu rëy rëy rëy nañu gaaw nañu njëkkante ci lu baax saari'u ila maxfiratin min rabbikum la ñu borom bi wax rawante leen jëm ci njëggalu borom bi tabaraka wa taala rawante leen jëm ci àjjana joo xam ne yaatu waayam toll na ne asamaan ak suuf waaye kat ña ngi ko fa tegal ñi ragal yàlla te koor nag ragal yàlla lay joxe kon ku génn ci koor war ngaa am yaakaar jéem a bokk ci ña nga xam ne ñoom lañ tegal àjjana joojee ndax àjjana ja la cay tax a jot mooy taqwa te borom bi nee na woon koor la allakum tattaquun ngir ngeen jëlee ci ak ragal yàlla